ñu la la xeer nga wàcc fayu doo ma sa àgg donc mu ngi noonu Ndeye Gueye nag euh, comme li ñu wax man moom dama bokk ak moom liggéey ay at mu nekk nit ku baax nag koo xam ne alalam du ko boole kenn day partager ak ñëpp li mu yor donc xol bi rek bu ko ko yàlla fayee du am benn jafe-jafe maanaam xol yàlla fayee du ndax bëggul ku nekk ci jafe-jafe bëggul ku mer bëggul ku nekk ci xat-xat yenn saa yi nit fañ daan liggéeyee fee nit day yéeg ci kaw ana léegi moom laa soxla ñu ne ko loo koy dee mu ne parce que dama am jafe-jafe sàngam su ñëwee nga wax ko mu ne ko xaaral maa ngi ñëw day wàcc dem gis kooko ci suuf da koy jaral moom mu wàcc gis ak kooko ñun dañ naan ko ñii est ce que nekkul ñooñu nga xam ne fee bëgg a ñëw rek pour visiter xool fii ñu fi mën a sàccee mais non nit bu nekkee ci jafe-jafe boo koy xool di ko xam donc nit la koo xam ne pour pour vous rek dafa am xol bu rafet donc bu ko yàlla fay xol. lu gën lay am lu gënul nag moom du ñëw day géey jàppal loolu rek yàlla baax na yàlla dina ñëw incha allah rabbi donc nit ku baax la nit ku am dal la donc ñu dem ba tey ci wàllu polémique Sénégal comme li ñuy wax comme Sénégal moom ñun dañu fee ne duñu duñu liggéey te ku liggéey ñu ne la mukk doo dem Aziz Ndiaye mi nga xam ne daa xewal doomam xewu ngand nag yëkkati apartement bu trois cent millions jox ko ko ak euh, oto bu vingt millions loolu nag xaalis la de. Hmm. <laughs> trois cent million appartement trois cent millions ak oto bu vingt millions mu may ko ko. léegi dafa am ñu ne Aziz mii dañ ko war a auditer <laughs> waaw dafa am ñu wax loolu ne Aziz Ndiaye dafa war a bokk ci nguur gi war a auditer Baye nag bi mu toogee ci plateau IGFM. Euh, TV foofee la toog daal di wax nag ci Aziz jaar nee na jaar Diar na Sandaga nekk fa commerçant pendant dix ans commerçant du ñëw ne yor Aziz na ma dërëm jaar na marché suma ma juumul Tilène la wax def na fa parcours am entre euh, quatre vingt ak quatre waaye Aziz yorelu fa kenn dërëm Aziz mu ngi ci secteur industrie bi amul kenn koo xam ne yoral na la fa dërëm ne la aussi Aziz mu ngi ci làmb ji waaye yoralul kenn dërëm ne la kooku lépp lu mu am da koo xeex da koo ñafe donc c'est normal doomam di xew te yaayam mësu Aziz mësu koo xewal parce que seen yaay nekku fi mu ne lu mu jotoon a ñàkk ca yaay ja wala bokk lu mu deful woon ca yaay ja da koy def ci doomam te bu Aziz génnoon àdduna moom Baye Ndiaye mooy wax da koy alal ji doom yi ñoo koy doon. kon su yëkkatee alalam may ko doomam lan moo tax ñu naan dañ ko war a auditer euh, Belia muy kàddu goo xam ne ñu bari nee nañu ñenn ñi dañoo soxor ñenn ñi ne sénégalais yi bon moom Baye Ndiaye moo wax nee na dañuy wax lu ñu maîtriser wu loolu quand mu ngi ci dëkk bi. Mm-hmm. nit day toog di wax rek te la muy wax maîtriser wu ci tous. dëgg la mais Baye yëkkati lu mu defal doomam da koo war nee naa ki yor 1000 francs yor 100 francs yor million ba milliard ñoo ci yem. nit ku lekk li nga am ngay terale sa njaboot xëy na Aziz dafa tollu fii moo tax mu yëkkati daf daf ko ci doomam te yaakaar naa ni war na ndax doom dafa nekk nawle ba pare doom euh, surtout jigéen li ñu la ci wax rek yar ko ba mu màgg maye ko mu sëyi li ci nekk rek xëy na tamit da koo bëgg a mettre dans des bonnes conditions ba nga xamante ni euh, du am benn jaaxle si mbirum euh, sëyam mais tamit lu mu ko yëkkati may ko rek muy oto beeg appartement beeg yépp nit a koy liggéey mm-hmm. oto liggéeyul nit nit mooy liggéey appartement oto nit a ko defar créer ko appartement nit a ko tabax kon nit moo koy jënd nit ka koy jënd nag ka yor xaalis la kon donc nit mooy def li ni mel kon bu bu nit ñëwee jël loolu may ko doomam dañ koy rafetlu rek mais dafa am ñoo xamante ne li may rek Sénégal moom nga def ñu wax boo deful ñu wax dafa am ñoo xamante ne yaakaar naa ne seen connection doy na doy na goo xamante ne dañuy xëy suba ba ngoon amuñu liggéey amuñu màppandoo wala ñu nekk seen bërëbu liggéeykaay fu ni ñu dugg fa di fa kaa di fa envoyé seeni i commentaire te da lay lenn ñoom yoon nañ seen paan boo xamante war nañ koo mën a lijjanti lijjanti soobu jàmbur Aziz ñu audit ko ñoom ñi koy wax balaa ñuy audite ah, Aziz nañ ngeen ne ñoom ñun ñi ñoo bëgg audit Aziz boobaa ñu xam ne kii ak kii ak kii ñoo bëgg audit Aziz ñi ñu war a audité ci réew bi ñoo ngi fi ne gàññ jël suñu milliards yi ñu war leen a goxiloo ñooñu lañ war a audit ñoo ñoo yelloo audit mais Aziz Ndiaye li Baye Ndiaye wax rek fi mu jaar jaar yëpp aana ku fa jaar takk ban dañ waxante dëgg rek jàmbaar la de jàmbaar la am na ñoo xamante ne war a wax seen alal fu ñu ko jëlee ak fu ñu mënti dugg ak seen i ay ay nit yoo xamante ne si business dañuy liggéey ak lu mënti doon moo xam day jaay màdd baa day jaay day jaay dàll baa day jaay oto ci yàpp nit alal lam mu jëlee jox ci doomam soo yoon nekku si mariage ba xew ba bu fa yàqee ay millions soo yoon nekku si moom moo ko liggéey moom moo ko yéene doomam yoonu kenn nekku si bu tollee noonu ñooñu naan dañuy audit bu amee xew daal pour seen xewal seen doom ñu yokkati lañ bëgg bu dee 1000 francs lañ yéene seen doom ñu jox ko ndax tamit mbir mi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xale bu jigéen dafa ñàkk yaayam mënuñu ko jox appartement buy jar un milliard wa oto bi jar 1 milliard ba remplacer yaayam bi mu fi ñàkk fii ku sañoon booy xew sa yaay nekk sa ginnaaw sa yaay yor sa xew yor sa lépp ku sañoon sa yaay fekkee lépp moo tax damay joxe benn la leçon ñu yore seen yaay muy dund luñ am nañ defar seen yaay te xam ne ñi ñàkk seen yaay ñu ngi bëgg a gis seen yaay bu weddee ñu yëkkati jox leen. Hmm. kon kii nii tey lim manqué amul lenn loo xamante ni mën nañ ko faa jël rek fàtte ko turu boobu noonu mënul am Aziz dafa def lim mën rek mais lenn mënul remplacer yaay ci àdduna xëy na Mame Binta lim fi dund métti na bi Aziz di am di di di moom la woon. bi Aziz di ñàkk moom la woon. bi di am ba dem ba am problème moom la woon. lim dund ak Aziz Ndiaye bëri na bëri goo xamante ne. tey jii bu demee ba neex ba Aziz nekk ci doon kaas bi ñu koy ñaanal nag mu sax di ko ñaanal képp koo xamante ne tamit yaa ngi ci yoon bi. Mm-hmm. ah mais yoon la mu jël la mu waroon a teralee yaayam xëy na mu ne xam ma def ko ci doomi mais la nga xam moom lan ko maam Binta defal ku daan jël alalam di jaay di la jox. Pa Ousmane kooku boo def teralee doomam dalaa war. te buñ ne doom ji du doomu maam Binta kese doomu Aziz Alé Ndiaye la tamit. waaw nañuy fàttaliku ni bu baax a baax a baax daal papa lu mu def si doomam. da koo war. ndax buy judd dañ lay jox papier blanc. boo xam mm. amul benn tâche. Mm. ñu ne la na nga fexe ba bu yor maquillage bu am benn toq tokk bu ñuul. Mm. nit boo amee mille francs weer bu dee. war ngaa mën a jël sax 500 wala 300 bopp ak sa njaboot ba nga xamante ne bu ëllëgee dañuy am sa yërmande ba bu ñu amee dañuy defal la yow. papa mais fii am na ñoo xamante ni ñu bëri bu weer dee dañuy ñaane defal seen papa yi ndax dañu naan seen papa faalewul leen woon ba ñu nekkee xale. mais yàq say doom yàq xam nga lan laa bañ sàmba alaar nit koo xamante ni defaloo say doom defaloo sa soxna defaloo say jabar defaroo kenn defaroo sa yaay defaroo say sœur mais nga génn ci mbedd bi ngay defal ñooñu samba alaar boobu man moom laay bañ man booy def liñ naa walaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk ba pare ñam nag suukar sa saf na dega dega ga saf na wala sooba saf na ba pare ngay soog a jaay képp ndax koo jaay dina nga xam ne yow lan la loolu lan lay la ngay saf mais tey jii na bu ko defaree njabootam loolu nañ ko ci encouragé di ko ci remercier bu baax a baax ndax alalam la mhm. tey ji bu doon sama alal tamit euh, euh, Alioune Badara dama ko ciy def sama doom doom moom loo ci def lu nekk ñaakoo ko mhm. muy la am solo quand même doom ji sëyi nga accompagner ko ne ko demal nga sëyi waaye du ma la bàyyi danaa la jox loo xam ne dina la doy donc Aziz loolu rek la def wax dëgg neex yàlla nan ko ñaanal nag ah nan ko ñaanal rek te bàyyi nañ ko nañ ko audit euh, Kurita Sarr dañ ko war wala gaa ñi moom dañuy wax lu ñu maîtriser wul ni ko bàyyi waxee wala da jàpp ne euh, la fa génn itam mënoon nañ koo def ci suuf rek. Mm-hmm. Ah, ne euh, kii nañ ko def nangam rek waaye xam nga nag fii moom def def ci suuf moo yombatul parce que mm-hmm. ñu mel ni man ay kaakat lañu maanaam mm-hmm. dañuy lijjanti bay lijjanti la ñuy waxtaane ci biir néeg ya di ko génnee loolu tam c'est c'est grave léegi nag waaw xam nga tey moo tax sénégalais booy def da ngay def part ak organiser c'est-à-dire lépp lu nga xam te ne si dafa xew nga denc ko euh, bañ ko siiwal aussi c'est important parce que gars yi tey dañ lay teg bët en quelque sorto et ils vont se dire que kii kat euh, li mu am du jeex léegi nag tey ki nga xam te ne si ba muy liggéey du tey xam nga bu fekkee da nga wax euh, côté Sandaga mu nekkoon fa jamono yooyu noonu def fa plus de dix ans dix ans jusqu'à nos jours loolu boo ko boolee kooku kon du moom toute sa vie il a il a il s'est mhm. il s'est battu pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui mhm. euh, parce que tey nekkul koo xam te si démb liggéey tekki tey non moom dafa yàgg liggéey investir ci yu bëri mais tey marque fii marque société yi nga fiy gis nii yëpp tey mais Aziz Ndiaye moo ko moom tey yor na fi benn société bu mag a mag boo xamante ne ay nit da nga fay liggéey te société boobu noonu ça marche à merveille di fay ay employés société boobu tey amoo société booy wax fii ci Sénégal te doo fi tudd société boobu kon nag moom lu mu maye moom ko moom. Hmm. lu mu jox doomam moo ko moom. loo maye yaa moom bu Wally Seck. waaw waa ko moom mooy boobu dafa ma neex mooy boobu dafa ma parce que xam nga dama siy jàng lu bari loo maye yaa ko waaye moom tamit lu mu yor moo ko moom. waaye nit dina sàcc maye de. ah sàcc maye mais fan nga dina dem sàcc agressé maye. waaw loolu am na. waaw mais moom tey jii. loo maye moom loolu am na de. mais nit dina taxaw ci koñ. agressé nit jël xaalisam waali di woy wala keneen di woy mu dem baatare ko fekk ah. xaalisu sàcc la jox ah, ah, portable bi dem jaay ko dem dugg soirée mhm. ñu naan loo mayee moom mais nit dañuy sàcc di sàcc di mayee nit dina fen di mayee mhm. yow toog toog ak nit mu wër yow li nga wax dara lu ci dëgg da ngay da ngay nar rek du dëgg mhm. pour mu jox la xaalis rek mais loolu yàlla <laughs> ba ñu yëkkati xaalis bu bëri jox la nga dem maye ko waaw moomoo ko loolu yàlla nañ ci yàlla musal te jamono ji bokk na ci li nga xam te ne si dafay dafa exister mm-hmm. euh, waa pen di maye moom bëri na dem di pen ba ñu may la waa loolu moom tam am na ah. waaye itam ak lu munti am tey ci senegal tey euh, nee naa la tey euh, tegante bët bi moo bëri dañ ko wax maanaam nit ñi dañoo mën a tegante bët mm-hmm. diw am na lii ngay lijjante fan la ko amee mais est-ce doo jéem a def diw noonu diw moomu ba xam moom da nga xam lan la def ba am ko. xam nga Sénégal tey nee la benn mbir dafa am mooy dañuy jékki-jékki tey xam nga côté Aziz Ndiaye sax sori na mais yow nekkal ci kër rek tey nga nekk fa ak ay nit loo am dañuy jéem a xool foo ko jëlee parce que dañuy naan kii liggéeyam est que mun na ko may lii kii xaalis bi muy am fan la ko jëlee te yaa ngi liggéey de mais dañuy ne liggéey bi mënu laa may xaalis bi nga xam te moom nga ñu naan kii fan lay lijjantee kii liggéey bi nga xamante ne xaalis bi ñu koy fay dala leer ni tey mënu cee def besoin yam yi yëpp mhm. boobu fekk commencé nañ la teg bët moo tax loolu ci biir kër gi la commencé balaa ngaa wax sax Aziz Ndiaye dafa sori léegi Aziz Ndiaye tey bu ñu ko gisee tey muy tudd ay millions yu dul jeex mariage bi xaalis bi ñu fa gis liñ fa dépensé kenn xamul nu mu toll mais kan moo leen wax ni tey moom créé wul woon benn compte doomam ba nga xam te si tey bu amee bés ci la koy daaj pour mën ko teral di ko fa di xaar daal waaw ah, mën na nekk de. lan moo tax lu leen woon ni tey am na ñu bëri dañuy defar seen doom yi ay compte bloqué yoo xamante ne pour seen doom bu ñu amee bés mais doomam benn bés la am muy mariage am. ci la ko mën a teral. Mm-hmm. mooy baayam am na xaalis ci la ko mën mais loolu où est le mal. gisuma ko demal. Ah, kon gars yi nañ bàyyi xel ci yenn yi tamit te jéem a liggéey man na xam nga kan àndal kuy toog di wax rek kii toog di wax rek te doo jëf man mënumaa ànd ak yow man ki ma mën a àndal mooy kuy liggéey boole pat organisé. te gis nga tey waxkat yi nga xamante ne ñooy wax quatre-vingt-dix-neuf pour cent sax xamuñu ñu kaa bi demee. ñoom daal ah, nañu jékki-jékki rek sama genre gi nag ma riirandoo ak ma tëbandoo moo ñu sonal ñun Sénégal jékki-jékki dégg nañ fii dem nañ fii dégg ni waa Aziz Ndiaye di xaalis ba mu mayee ñu dem débat ko feneen di dem débat processus bi def noonu mais du loo xam te ne si sax dañ koo euh, dañoo dañoo def ay jàngat wala def ay investigation pour wone ni Aziz Ndiaye tey lan la liggéey ci biir dëkk bi ak yan société la am loolu yëpp jéemuñu ko sax creuser ak depuis quand la commencé liggéeyam ak investigation ak kii investissement am loolu yëpp ñu ko de. ñooñu kaay mooy kaakat yi toog grand place boo dem dégg fa dara dem yóbbu maanaam wax la boo xamante ne tey nit day wax fii nga dégg ko dem yóbbu ko nga dem toog ak Pa Ousmane nga ne ko waaye yow dégg nga yow di ma dégg te li nga dégg yow ji xamoo ci leen de non non juste ay supposition seulement. tu n'en sais rien. dañuy supposer te looloo ñu sonal ay supposition xanaa kay Alioune Badara en tout cas yal nañu yàlla may xolu muñ rek comme ñi ngi Sénégal moom. Mm-hmm. yal nañu yàlla di may euh, xolu muñ saa su ne ba tey lépp lu nga xam te ne si rek nit waxal nañu ko moo tax def lu baax ak nekk ci lu baax ak di ci sax dafa baax. parce que loolu mooy tax tey lépp luñ la waxaat rek yow toujours tu as tes preuves te kenn bañ la fekk tamit ci lu ñaaw wala ci loo xam te ne si dañ la ciy xeeb ñu ne ah kon diwkat lañ ko doon waxal dëgg la yal nañ ci yàlla musal. amiin Pape Ousmane. waaw man de damay sant rek di wax bu baax a baax Aziz Alain Ndiaye chéri Aïcha ah macha allah ba nga takkee Aïcha ba léegi dañoo gis ne Sénégal moom ñëpp dañoo gis ni Aziz da nga gën a macha allah daal affaire dafa gën a dox waaw. aawa ah, ah, ah, na la dig waaye ñaareel it na la dig. waaw yow eh, eh. jigéen moom loo yóotu jot ko rek. waaw kon nag yàlla yàlla dëgëral sa sëy yow ak sa soxna yëpp. macha allah defal la jàmm. am na gars yu ne Pape Ousmane mi ay Aïcha Rasoul ko bokkal benn. en loolu la gars yi di wax. waaw ñooñu déedéet dama koy dee jox na la tam nga ak Miss ñoom ñaar ñëpp dama leen di ñaanal. ah Miss tam ci la bokk tey. Ah, ci la bokk ah kon di ko ma ñaanal kon kon baax ñaanal naa leen ñoom ñëpp. Ah, kon allez y kon. léegi nag. Ah. dama bëgg wax ni Sénégal dafa am ñoo xamante ne dañoo ne ci réew mi àndoon ak nguur gi di xeex ba nguur gi falu waaye amuñu xel seen xel dafa des. parce que gis nañ ni ku am rek ñu ne la nañu xool li nga yor fan nga ko jëlee te ñooñu nag boo leen di xool quatre vingt dix pour cent ay illettrés la amuñu dara. comprendre ñu bëccëg comprendre ñu guddi saaga leen ci commentaire yi wax lu leen neex mais dafa am ñoo xamante ni fii Sénégal loolu dafa bëri ci nguur gii ñu nekk nii mu fal fi tey am ñu leen fal une deux trois quatre cinq six sept huit neuf balaa ñu naan dix ñu ne audité leen ko wala jàpp leen yéen yéen a war a jàppe wala war a audité nañu gars yi may jàmm c'est pas eux les militaires c'est pas eux les juges ñafe nañ Ousmane Sonko ak Jomaay ba ñu yéeg si Sénégal ñoo ko faay ñun ñëpp a ko ñafe ba ñu yéeg nañ leen may temps bin bin tekk ak teey ñoom xam nañ dossiers yi ñu war a laal mais ñoom bu ñu leen goxiloo kenn ñun on a pas le droit de leur montrer goxiloo leen kii Sénégal nag loolu depuis bëri dañuy goxi diw dafa sàcc diw sax dégg naa dafa sàcc réseaux sociaux yi TikTok yi ñuy jël poster yu nii di wota yow mën nga nekk juge yow ba tey ñuy falu nañ koy bàyyi mais yow nan ngay voté ñiy palu ba pare nga bëgg nekk di goxaloo nit ñi Aziz Ndiaye da nga liggéey sa alal Baye Ndiaye da ngeen liggéey seen alal ba toll fii man am naa doom bu jigéen bu tolloo âge peut-être kii doomam bii su ma yeewoo mu woo ma ne ma papaa damaa am balaa muy wax dugg naa sama karañ-karañ ah waaye nag bu yàgg kooku moo tax may noyyi. c'est ma vie je l'aime bugguma may toog muy am problème mu xaalis su ma woowee di ma papa dama am problème mu lii balaa muy coupé dama naan ko gaaw gaaw coupé mu envoyé la sama mag sama rakk yeeg sama séeréer dañ naan da nga réewal sa doom bi man leen maa tey sama fii bëgguma muy dem taxaw ci bopp koñ bi dajee ku mel ni sama copain di ko ko wax mu koy iri. sa copain gàmbaar mooy kii eh. na ay erreur. baara bu fii yoo xamante ni dañuy jël doomu jàmbur yi di erreur. baara jël na ko mu toll ci yenn at bu ko xool bëgg ko mu nuroog jigéen. yor li jigéen yor yëpp ku ko xool di am looy yëg si yow aar ko aar bi koy aar nag mooy di dalal xelam papa damaa bëgg nga jox papa lii mooy sama problème nga jox parce que bu ne la papa jox ma joxoo ko mu dem ci Assane wala Paate wala Moodu mu jox ko te Assane wala Paate wala booy seet si ma gàlle jaaral gàlle quoi jaaral demee loolu la lay tegal yow doo xam donc man yooyu yëpp dama koy kiiwal sama doom di ko ko dawal kenn mënul contrôler lépp nag mu mot da ngay jël après li ci des nga bàyyi leen ak yàlla yenn saa it ngay toog di waxtaan ak ñoom di leen delloo seen bopp. Mhm. yaa moom sa bopp kat man yàlla mu def na ne man maay sa papa. Mhm. mais yow tu consciente xam nga li baax. Mhm. xam nga li bon lii boo ko defee lii moo la ci mën a fekk lii boo ko defee lii moo man sama doom noonu laay def ak moom de. sama doom tey bu ñu taxawoon léegi mu woo ma téléphone bu ñuy wax boo may toll que ni kii gelam wax mon amour la may woowee ma ah, que je l'aime c'est mon eh, amour. Eh, eh. c'est ma sama taaw. quand je parle avec taaw je lui dis mon amour mu ne ma mon amour. su ñuy ka coupé mënu ma bisu ma ne ko bouger parce que c'est mon sang sama doom la doom dafa neex. balaa ngay xam ne doom a neex nga am doom. wallaay dasim. balaa ngay xam ne doom a neex nga am doom. moo tax Aziz Ndiaye bu ko neexee na def ci doom ji bu ko defoon un milliard jar na ko. Mhm. Aziz Ndiaye na def ci doom ji un milliard jar na ko. Mhm. réew nag boo fa nekkee boo xamante ni dañuy conjugué war bu wax au présent de l'indicatif je wax ci wax il wax mu waxoo il elle wax bu leen faale. yow dundal sa dund rek nga dem. Mhm. parce que boo duggee ci yenn détails yi rek da ngay sonn Aziz bu ñu leen lijjanti doomam ji yàlla na ko yàlla lafal cat. Mhm. moo jëkkëram ji ñu bëggante. Mhm. sëy yàlla may leen ci njaboot gu barkeel. ba Aziz Aly Ndiaye dégg ci turandoo ba muy dégg maam. ndax maam dafa neex. man tey Liberté 5 gii bu ma fa demee sama grand frère bu ma bokkal ndey ak bàyyi doom yi xam nga lu ñu may maam su ma dugg see si kër gi Mouhamed maam lañ may ñoom ñëpp daw si. moo tax bu may ñëwee ba jege bitig ba mbiskit meew boisson lépp lay jël def ci mbuus bu ngale. dugg ak moom ci biir kër gi eh maam ñëw mais day neex ma ne ah kon ndekete maam nii la neexee nit bu dundee ba ngay dégg ñu lay wax maam santal yàlla te man nag maa ngi dégg nag de maa ngi dégg ñu may wax maam de. yaa ngi dégg maam. sama sët yi nekk Liberté 5 gii. ah maa ngi dégg ñu wax maam. Fatou nga fa Fatou Awa nga fa ah, ah kii nga xam maman ma nga fa sama sama doom yooyu nga xamante ni sama xol bi lañ ne bu ma toogee ñetti fan gisuma leen damay yàqante dem Liberté 5. nekkal fa ñoom di dàqante te lu luñ ma def daf may neex. moo tax kuy dund ku ne rek na nga ñaan yàlla nekk maam ndax àdduna bi tout est éphémère da ngay judd nekk xale dem ba mu yàgg nga màgg am soxna soxna googu am doom ngay tette sa doom dem ba finalement sa doom boobu nga doon tette yow moo lay tette. ngay defal sa doom dem ba finalement sa doom boobu nga doon defal moo lay defal daan doon wax sa doom toogal léegi sa doom bi moo naan la papa wala maam toogal kon nag àdduna dangay joxe lii ngay joxe tey ëllëg dañ la koy delloo moo tax muy man muy yow muy ku mu doon ki ñuy seetaan investir leen seeni doom dugal leen ci école yu baax yi jëndal leen leen yëre yu baax dàll yu baax di leen jox ñi lekk lekk gu baax di tëdd fu baax ngay dalal seen xel ba du ñu kii dara man damay toog des fois mu yàgg rek woo sama doom bi mu ñëw ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko kontel ma xaalis bi dama xamul ñaata la mu ma ah, papa ma ne ko ah kontel ma tëdd di ko xool du ma ko sax faale mu jël dix papa temps la ma ne ko ah, la mun maa ma ne ko wër na la temps la mun ma waa parce que damay bañ mu tiit ci xaalis sa doom des fois da nga koy da koy da nga koy musal ci yooyu yëpp muy bañ a tiit ci xaalis parce que am na ñoo xamante ne xale yoo xam bu ñu gisee dix mille tiit mhm. dix mille bu ñu koy gis di tiit sa doom di dil tàmm bu amee yenn âge nga koy wàññiloo xaalis loolu day tax xoolal fëkk du ko yóbbu fëkk du ko yóbbu maanaam ki jóge fee rek yóbbu yow biliyaa ñaata meeree jaay ay fonde ñaata meeree jaay ay sandwich fii gars yi taxaw foofu ku bëgg a jënd sandwich nag ñu jëndal la sandwich iri la yóbbu. Hmm? fii ci Sénégal fi jeex. fii ci Sénégal am na ñoo xamante ne da ngay reer da leen di jëndal reer yow nga reer si ñoom am na fi am na fii ci Dakar gii billaahi fii ci Dakar gii li ma lay wax barki Seydina Mohamed. du question rawan rawan si si. dañuy ñëw taxaw yow nga jëndal leen sandwich jëndal leen lu ñu naan iri yóbbu xët bëri na te am na góor yoo xamante ne loolu rek la ñuy wër jigéen bu nekk dans le besoin ndax biir bu xiifee rek indi problème biir bu xiifee da lay jógloo boo gisee nga nekk ci kër sa papa amul sa yaay amul sa papa luwee benn néeg guddi gi di jël benn rideau traversé ko ci digg bi lal mat laa ci suuf xale yu góor yi tëdd xale yu jigéen yi tëddee nee paa beeg bi bu doom yi génnee est-ce que dina leen jéem wëri te fii am na fi ñoo xamante ni horaire bee leen fi indi mais dañoo yàgg Dakar amuñu moyen am benn néeg di ko fay am ay doom yu mag moo tax man yi nawet fii famille yu bëri yàqamti wuñ ko ndax ñu bëri ci kaw terrasse yi la ñuy fanaan ak balcon yi bu dee dafa xiin asamaan si mi ngi xiin di taw ñëpp dañuy tiit ndax saali yi ñëpp dañuy toog di xaar mu sowet pour ñu fobeere mën a tëdd am na famille yu sonn fii am na famille yoo xamante ni du ñu ndékki añ du ñu ndékki du reer rek moo fa wóor midi bu jotee ñëpp lekk mais guddi fu waay xam jëm moo tax foo tourné gis dalandaa Fatoumata Diallo euh, euh, Roguyetou Diallo teg fonde fonde pël Fuuta yi fi mu nekk nii moo jàpp ñëpp lex yi ngay gis fonde pël Fuuta yi la ak bañ a pël bi ah ak local yi gaa ngi fay jaayul si dëkk bi foo tourné ñu ne local local local constipation bi mi ngi ni tël ci dëkk bi ndax ñëpp hamburger la dundee farine bi pat bi. colopathie yi yooyu colopathie yeeg yooyu yëpp hémorroïde bi ngay gis. bu bëri yëpp mais nag mais nag bañ a pël bi moo ci tane ah. bañ a pël bi a pël bi dugub la Pape a dugub a dugub bu bëree da seere de. Ah. bañ dugub bu bëri da seere farine day seere doomu aadama. boo eh. waral constipation yi garabu garabu yi bëri dama faj hémorroïde yi interne ak externe gars di leen rey ci télé yi di leen. Sidi Ba Ba yooyu man parce que on mange mal. war nañ moo ñu rey boo demoon taxaw buntu armeel yu bàq yee Touba da ngay tiit. kon hamburger baax na ah. hamburger baax na hamburger hamburger yi seere la lay indil rek da ngay gis ku toog ci duus di onk ba bët yi jooy <laughs> loolu baax na yow pour nga dem duus da ngay toog di onk ba sama ay bët di dugg si douze def fa vingt minutes. mais loolu c'est c'est anormal. ah moom ku war dëgg dëgg dëgg douze juróomi minutes doy na. <laughs> boo duggee accéléré affaire bi gën a nga dem sa yoon. douze douze vingt minutes mais fii ah. da ngay gis ku dugg ci douze vingt euh, minutes problème am na jël temps duuxlu côté bu ne lay demee. <laughs> mu ne waaw da ngay day gën ba di jooy. parce que li ñuy lekk mu baaxul. <laughs> ne vingt minutes nañu maytu dawlin bu bëri bii. Hmm. dañuy rey. cholestérol beeg ay insuffisance rénale yooyu yëpp moo ñu ko jox. nañu nañu lekk lu mën a manqué dawlin buñ koy def dinañ mën a am dund bu baax Sénégal tey boo gisee faiblesse sexuelle yi am sax. gars yi ay garabu ngóor fii am na ñu bëri ñoo xamante ne balaa ñuy seeg seen jabar naan ay bagage pour mën a taxaw mhm. parce que affaire yi dafa sëgg mënatul yëngu kon nag dëkk bi nit ñi fi feebar a bëri non Sénégal li fi li fi nekk ci heureusement heureusement ba direction bi ñoom def nañ émission bi heure guddi maanaam mu mu mu guddi heureusement daal heure du crime lañ ko def yenn saa yi waaw Ousmane yi muy génn nii non non Euh, yenn ki kon Pape Ousmane eh, cere baax na kon kon nañuy sëgg sëgg ci meer cere bi. waaw cereek ak meew baax na kon. Mhm. meew yu bari tey jii meew yu bëri laa lay wax meew yi yu bëri surtout pëndëf bii. Ah. Euh, maanaam. kii baarawul euh, yi ngay gis pëndëfu meew yi. Ah. ñam bi pullux bi. Ah. moom la ñu wowal ba mu wow. bur yaay ko boo tuuti baara yaa ngi dégg. non sérieux li ngay wax nii. àll bi ngay toog ñu lay jaay naan la ñun meew piir la ñuy jaay. waaw ndox la ñuy jël ak tuuti meewu nag. jonkan ci àll bi. Hmm? jël meewu sunguf meew jaxase ko teg. ñoo bëri ci àll bi nga naan meew piir lañ ma jox man de meew bi man naan démb saawaay. Hmm. meew bi ni mu neexee. fekk naanoo benn meew. gis nga fii senegal ñun alimentation lañu am problème. alimentation tax na jigéen ñi mënatuñu am doom. alimentation tax na góor yi faiblesse sexuelle yi bëri. jigéen ñi dañuy mer góor ñi dañuy mer. Hmm. guddi gi ça ne chauffe il faut que ça chauffe les gens doon soxeetuñu mais c'est vrai dañoo xam ne dëgg góor ñu bëri léegi amatuñu plaisir man damay jaay ay aphrodisiaque yenn saa yi ñaata nit laa koy jaay par jour. ñaata nit laa koy jaay par man nañu dem ci beneen cas alaaji may wax dama ko maîtriser. Sénégal fii gars yu bëri dañoo sonn les gens. sont il faut ñu xoolaat bu baax li ñuy lekk tant que ñu ngi lekk n'importe quoi. ak n'importe comment. jërëjëf xoola dañuy am problème mais Aziz Alain Ndiaye li ma koy wax am sa doom defal ko lu baax. dara newu si defalal sa doom lu baax ndax man am naa doom bu jigéen bu tollook sa doom bi man lu baax rek laa koy defal. lu baax la koy defal jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw parce que nous moom